mbooloo bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant ñu ngi leen di jaajëfal ci seeni teewaay ngo maa ngi tudd Abdourahmane Ndiaye may coordonnateur collectif des jeunes du Fouta euh, suñu toogaay tey mooy li nga xamante ne tey umpul réew mi kenn ñépp a ngi ci teg seen bët ñépp koy gis mooy dem gi nga xamante ni président de la république da koy dem ca région du nord ca Fuuta euh, li ko jëlee fukki fan ak ñaar ba fukki fan ak juróom-ñeent mu ngi koy amal foofu noonu tournée boobu noonu ci suñu diiwaan dina ko ci dem euh, ci région région de saint lu dina dem département Podor dina dem département de maatam également dina dem département de Kanel ñépp ñoo ko gisandoo yëgandoo programme bi waaye ngan day fekk mu neex borom kër dama lay gane si day fekk yow mii ñuy gane si mu neex la nga ànd ci yaakaar naa ne loolu lu am solo la waaye ñun boobu ba léegi gis ngeen ñi ci suñu mouvement ndaw yi nekk fuuta yépp tey gis ngeen alhamdulilah gis ngeen ndey mouvement yi jóg yi nga xamante ne ñi ngi bañ nu mu bëree ci fuuta ndaw yépp jóg nañ ci collectif yépp ci mouvement yépp ñi ngi wax ci benn kàddu li nga xamante ne moom mooy fuuta ak ci ngëneelu fuuta président de la république soppuñu ko ci suñu diiwaan guddi ñu nii. adduna nag boo demee bañ ngay teeroo ak i tàcc ay ree ba dem ba bëggatuñ la war ngaa xool sa doxalin doxalinam du lenn lu dul loo xamante ne tey dañuy jaxasee fuuta ak aduna ga ak sénégalais ku gis ak ku dégg yaakaar ne fuuta googu noonu tey muy dem tey day dem ndax def na fa loolu ak loolu ndax tey dañuy wax fuuta nedd ko bandum ndax tey dañuy wax fuuta mu ngi fay dem ndax lu mu fa defoon gars nañ ko teeru ak doole déedéet tey je pense que li xew ak li ñëpp gis doy na seen xel gis nañ ni baat bi benn la wax ji lenn la on ne veut pas du président bugguñu président fuuta ndax nit boo ñëw fenn day fekk mu neex ñi day fekk boo ñëwee ñin amal ñi njëriñ day fekk boo ñëwee nga am au moins loo xamante ne da nga fa koy inaugurer Macky Sall de mu ngi ñëw Fouta amul lenn lu mu fay inaugurer du lenn loo xamante ne réalisé na ko te 2013 la toog ca conseil euh, régional bu Matam mu def fa réunion bu amul fenn jël ay promesses yu dul jeex mu teg ko ci ndodd fuutanke yi waxi hôpital bu muy naan day dem pose première pierre mooy hôpital de Ourossogui gi boobu noonu muy wax tey boobu hôpital boobu kañ lañ ko dala coow bañ koy coow ba tey. leen dañuy wax dañuy def pose première pierre te pose première pierre nit ki loo xamante ne defoo ko ci sa 9 ans xaw ma 10 ans yi mandat yi jeex du si ñett at yi des nga koy defal waa Fuuta loolu nag ci anam yooyu noonu tey ñu ngi toog ana université bi ñu waxoon dañ koy def Fuuta ana yoon yoo xamante ne dañu ne dañ koy def. waaye yoon boo xamante ne ca meeting am 2019 ba mu ñëwee Fuuta ci la ndaw soosu noonu dee muy faatu si nga xamante ne moom si boppam moo annoncé woon dee ba di tronçon Thilogne ba nga xamante ne moo tax diggante Thilogne ak Ourossogui loolu depuis 2012 ba tey la ne woon da koy yeggali yoon boobu noonu ba fii ñu wax ak yéen ba jëmm tey jii nii yeggul yoon bii ba tey jii ñu wax ba jëmm yàlla yoon boobu amul yoon boobu mu ngi continuer di faagaagal di faat ay bakkan seen demu Fuuta du lenn lu dul tamit jël jaxasee ndaw ñi comme ni ngeen ko gisee encore ca 2019 mooy ñaari ndaw yooyu noonu xeexoon ci alal go koppar googu noonu Farba Ngom doon leen jox ñu doon ko séddale muy Ababa étudiant en thèse de doctorat à la faculté de médecine moom ci la ñàkkee bakkanam ci lan ay seddoo comme yi ñuy def gaare seen oto ñëw leen dem ku dem am nga mille ci ndaw boobu noonu ci lañ ko jamee ba mu ñàkk bakkanam nekkoon jeune étudiant doctorant xam ngeen loolu doon na loo xamante ne ñun ñaawlu nañ ko kon amul lenn loo xamante ne ñun njëriñ. am nañ ko ci ñëwum président ca Fuuta amul lenn loo xamante ne ñun gis nañ ci seen bopp amul lenn loo xamante ne tey yi Sénégal di wax ak li foog di naan waaw Fuuta moom am nañ lépp nedd ko bandum Macky Fuuta la dëkk ki dëkkul Fuuta amul daray Fuuta nit juddoo say paana jóge dëkk wala kii nii Macky sénégalais la ni sénégalais yépp bu dee nedda ko bandum boobu noonu lay woote mu nekk nii kon nedda ko bandum la ca Touba nedda ko bandum la ca Fatick nedda ko bandum la ca Tamba Macky c'est le président de la république de tous les sénégalais sans exception par contre sans exception la sénégalais yépp moo leen boote jur moo leen boote ëmb amul fenn foo xamante ne dëkk na fa maintenant nag comme ni ñu leen waxoon ak li ngeen gis tey floraison mouvement Fouta yëg nee nañ ko nag bu mu ñëw moom ak i leader yoo xamante ne moom moo leen fal jox leen ndombol tànk te ñoo ñoo ko njëkk a war wax ko loo xamante ne amul ay kàcc neen la loo xamante ne bu demee Fuuta da ko fa fekk ñooñu nañu assumer seen responsabilité par rapport ak tertu googu noonu dinañ ko fa def ndaw yi déterminé nañ aujourd'hui plus que jamais dinañ ko tertu tertu goo xamante ne moom bi nga xamante ne duna àdduna bi yëpp dinañ ci teg seen bët comme ñoom nag yàlla dogal na ne forcing lañ bëgg ak yi nii amul problème comme mu tàmm nañ ko ñoom tàmm nañ ko di ko gis ak yooyu noonu ay faatu bakkan wala yeneen waaye na leen leer ne de bu laajee ay bakkan bu soobee yàlla ñun ndaw ñu jóg déterminé comme jamais ñun ñëpp bu soobee suñu bakkan yi fa la ñu des ñin yaakaaroon nañu tey Macky buy ñëw Fuuta day naan damay inaugurer ay hôpital ñun bëggatuñu feebar ñi ñëw ñu naan évacuer sur Touba ñu naan bëggatuñu feebar ñi naan évacuer sur Dakar bëggatuñu feebar ñi naan évacuer sur Kaolack wala feneen ak feneen amul fenn foo xamante ne Fuuba Fuuta da nga am urgence wala cas de maladie boo xamante ne ñu ne bii hôpital de haute qualité la mun nañ fa yóbbu waxuma la sax niveau 1 wala 2 niveau 3 hôpital de niveau trois amu ko fa li ñu naan nii bàkkoo tey ñu mooy loolu noonu Farba Ngom tabax ca dëkkam. muy euh, centre de santé añam la centre de santé la far ba mu jël ko dem yóbbu ko ci dëkkam comme moom nu ma koy waxee la moom mooy président moom mooy lépp comme ni mu ko waxee loolu bu doon am na tey woote googu noonu doon am lu dëgg nga am keroog du ñu dem jël seen doxu ñaxtu jël seen doléance dem jox ko gouverneur naan ko jox ñu ko président de la république te yow nga ne saa yow bëggee gis président de la république da koy gis donc dafa am loo xamante ne yelloowul maanaa dafa am loo xamante ne du xel fuuta gi yëpp par la voix de ces jeunes ci kàddu ndaw mi nee nañu bismi président ñun bismillah wuñ la suñu dëkk président de la république fuuta soxla wuñ la fa bu demee ba ñàkk nag comme ni ngay insisté da ngay ñëw bu soobee yàlla na nga pare ndax jàmbarloo bi nga xamante ne di nga ko fa am lenn ngay am indi fa ay nerviyam lenn nga fay am indi fa boo xam ne gendarmerie boo xamante ne ñoo fa war a nekkal taxawuñu ñoom tey ñooy jël di puus di jël ndaw yi di leen xatal lu fi waay bëgg lay am ci réew la ñu nekk ni ñu may pouvoir ak privilège seen politiciens yi ñi def seen perte nu mu leen neexee sol seen i t-shirt duufal seen i xaalis jox leen seen i casquette nañu bàyyi ndaw yee tamit ñoo xamante ne seen morso yu xonq la ñu am seen cotisation la ñu am jël seen i bus ngir dem ca Fuuta nañu bàyyi ñooñu it ñu matal seen seen seen dem ñu yegg ci jàmm ak salaam bu ko defee ñoom it ñu am li nga xamante ne war nañ ko kaas. donc loolu la ñu amoon ci li nga xamante ne dañ koy wax peuple sénégalais bi ñu xamal que ne ñin ñii tey waa Fuuta ñin ndaw Fuuta andu ñi tey andu ñu ëllëg ci ñëw Macky Sall dans la région du Nord. voilà donc je pense que position bi leer na moom la ñu waxoon ca njëlbeen ñi ñu jiitu ñi njëkk wax loolu la ñu wax tey jii tamit ñun ñi ci toll loolu la wax wax ànduñu benn yoon ci ñëw ga te bu soobee yàlla dinañu taxu jàmbarloo ak ñoom ca jàmbarloo ci anam yu am fulla ak fayda bu soobee yàlla voilà en français